kuy wër boroom xam-xam mën naa ni teeral nga boo gisee jëmm ji kuy wër ku ragal yàlla teeral nga boo gisee jëmm ji jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal sëriñ Abdoul Aziz Mbacke satuk sëriñ Sidi Muxtaar waaye nag satuk sëriñ Sidi Mouhamad Lamine Baara satuk sëriñ Tuubaa tedd mi ragal yàlla ga maandu ga waaye xam-xam ba tabe ga lépp dafa dajaloo ci génn jëmm gi mbokki internet Allô Sénégal jëmm ji ngeen jàkkaar lool yaakaar yi bari na fi lool waaye nag ànd ak solution bu bari mi ngi fi tey li tax nag ñu faral di ko seet si heure bu réew mi yëngatoo mooy kàddu yi nga xamante ni dina rafet lool mu koy yëkkati sénégalais di ko bàyyi xel waaye nag heure bu génnee ñu bari jariñu ci xam-xam bi nga xamante suñu borom may na ko looloo waral nag duñu bëgg sax di di tàqalikook moom du ñu bëgg di fi géej waaye yitte yi moo koy waral ñu bëgg waxtaan ak moom ci xam-xam li mu donn li mu jàng ak li muy jàngale bëgg waxtaanee itam ci actualité njëkkee ko ci procès Ousmane Sonko aji Sarr renvoyé nañ ko ba le 23 mais sëriñ bi nee na ma teeyal le 23 boo ko adatee adat le 16 bi ñu jóge mbir mi mu lay jox mbir la ndax secret ci biir secret mi ngi ci mbir mi mu ni ma mbir mi dafa lal mystique te boo xoolee dina di nga ko gis ndax gis nañ gendarmerie ak policier di jote seen biir tey waaye nag sëriñ bi dinañ waxtaan ci dossier bi diggante ki nga xamante ni moom mooy maître El Hadj Diouf ak Ousmane Sonko ndax est-ce que dafa am lu personnel lu nekk seen diggante Ousmane Sonko boobu ba léegi tekkaaral bi sëriñ bi nee woon na ma jàmm rek jàmm rek jàmm rek waaye réew mi boobu ba léegi muy yëngatu sëriñ bi nag faw mu génn wax ak mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan di ko bàyyi xel balaa boobu dañ koy bàyyi moom sëriñ Abdou Aziz Mbacké Balla mu nuyu mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah bisimilah asalaamaaleykum sëñ Lamine maa ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi teew la sama kàddu moo xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci biim réew ak ña nekk ci bitim réew di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ci yéen maa ngi nuyu ñëpp rek bisimilah. jërëjëf Mbacke Balla sama waa ji sama sëriñ bi sama xarit bi fi may njëkkee eh, mooy ku la xam-xam ni ku sévère nga ci wàllum ci wàllum seet ndax boo koy jàngale. ñi nga xamante ni ñaa ngi leen yaa ngi leen ciy formé xam nañ ni seet bokkul ak rythme bi nga koy jàngale ak yeneen dafa mel ni seet dafa am lu muy laaj ci xam-xam. waaw sëñ Lamine xam nga bu ñuy wax ci wàllu seet yonent bi alayhi salaatu wa dafa waxoon ni ñaari mbiri ngi bu nit saxoo rek mun naa ne ak njàqare ak coono mun naa dañ ci àddunaam la ci njëkk mooy diisoo ba ca topp nag mooy li saxaar li saxaar nag bu ñu koy wax mooy wër ak yiw diisoo nag bu ñu koy wax mooy nit ki bu amee tollee tollee ci yenn guddi mu waxtaan ci ak ña nga xam ne mën nañoo waxtaanal waaw seet nag dafa doon loo xam ne mbir moo seen rek am na baatin am na zaahir ni nga nit ki ni nit nit nit ki mën a fexe am tawatu yaram juk dem xool waxtu ne muy dem hôpital di ko xooli noonu la mën a sukkandikoo waxtu ne di saytu yaramam ndax lépp loo seen lu ne rek dafa tënk ci ay adat dafa tënk ci ay chiffres waaw na ñoo xam ne ña nga tëdd hôpital mbaa bëriwaa na ñoo xam ne ña ngay liggéey seen liggéey taxaw la ci ëpp daanaka daanaka ci ay gàllankoor lii daanaka ci wàllu def-def la lii ci wàllu làmmiñ la lii ci wàllu cat la ndax wolof kat dane cat bu rayut semmal te dañ ne nit ki mun naa wàcc lépp ba des cat ndax oto dañ ne lu muy lu mu fees fees fees nuyul ma waa kër ga xañ na ca waa cat nag la koy gis maa nit ki jafe-jafe yak guddi guddi ay guddi guddi yu lëndëm ya muy taxaw mm-hmm. lenn mënu koo gis maam nga seetal nit ki dama daan sartonte dañaa mboolem kuy ñëw ci man balaa ngaa jëfa jëflanteeg man ci lenn rek nanga ma xoolloo ndax bu ñu xoolee ci wàllu seet dafa am loo xam ne ci sirul maçon sëñ Cheikh Mamadou Lamine Baara ndax sëñ Baara naan borom rëkk day daan gis nit ni ko bis sàngam ngay dund bis sàngam ngay faatu waaw loo loolu nag dafa am lu bëree bëri loo xam ne nit sunu borom defal nañu ko ci barkeb Cheikh Mamadou lemin Baara ndeysaan li mu doon ci maamam bari na waaye ku ko miin te yàgg def ak moom émission toog kàlloog moom doo wax te njëkkewoo ci wàllum fas gi nga xamante ni wax dëgg yàlla buñ ko xamee ci réew mi yàlla ak sa jëmm jee tax ndax ba nga ko donnee ba léegi defoo ci lu dul lu ko avancé lu jëmale kanam fas gi ba sénégalais tey ñi ngi ciy bénéficié waa tamit ñi ngi ciy gis ndam. waaw Cheikh Mamadou Lamine fas gi nag euh, buñ koy wax nekk na loo xam ne dafa doon gàllaaj yoo xam ne dama ko jëlee woon Cheikh Mamadou dama ko jëlee woon Cheikh Cyril Mokhtar. Cheikh Sidil Mokhtar nag ku koy wax ni Cheikh Mamadou Lamine Bara ku ko wax ni sëñ sëñ Touba sëñ Sidil nag dafa nekkoon kilifa goo xam ne maanaam cheikhul rabbi la cheikhul nag seexul cheikhul murabbi bu ñu koy wax dafa yilifoon mboolem mboolem àdduna ndax ab sëriñkat booy jébbalu ci moom da nga naan jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira waaye wàllu fas gi nag damaa bindoon xasida ak nooru daare fekkoon sëñ ba ca Mbàkke Kajoor fekk genn góor ñëwoon di ko tawat jàngoro yi néew kattan waaw sëñ bi fabub téere mu ne ko ah maam de ëllëg bëgg naa nga jox ma loo xam ne sëñ bi yëgati ak kàggu jox ma fas gi nag ci la jóge fas gi nag bu ñu koy wax fasug néew kàttan la yaa de nit bu amee dafa am jafe ci wàllu néew kàttan mm-hmm. mbaa day sëy di gaaw di yegg mbaa ñaare ba saakaraam di dellu ndax sëñ Tuubaa dafa wax ni dagganal nañ ci ki nga xam ne dafay jàngale mu jaar ca yax ba ca la muy jàngale mu jaar mu jaar ca yax ba waaye fas gi mboolem koo xam ne am nga jafe-jafe ci néew kàttan waxtu woo ko takkee na nga xam ne loolu moom dana tàggu yow ba faw ba faw waaw fas la goo xam ne nag ndax fas bu ñu koy gàllaaju fas bu ñu koy wax mu ne lan biirun baarun sax sa saxin mujjib waxaaf jana fa jana fa min muxsin ne waaw ndax euh, xeeti baat yooyu ndax fas waaw waaw fas dafa dafa dafa jugee ci xeeti baati jat waaye fas la goo xam ne ñaareel mboolem nit bu koy takk dañuy sartante sax bu waxtu woo ko takkee boo booy jëflanteeg soxna si boo demee ba tëw a yegg nga tekki ko waaw ndax fas la goo xam ne bis mboolem nag lu ñu la ci wax waxtu woo ko takkee ci waxtu woowu loolu di commencé ni nga xamee ni mu amee bu góor noonu la amee bu jigéen ndax am na fas goo am na fas fas gu jigéen goo xam ne ñaareel bu jigéen guñ ko defaral rek ci kàttanu yàlla ak dogalam waxtu woo ko takkee diiru fanweeri fan waxtu woo ci jëflanteek sa borom kër sunu borom dana defal ak tawfeex ndax euh, gàllaaju fas nag sëñ Lamine di wàllu gàllaaju néew kàttan buñ koy wax dafa am solo lool ndax àdduna dañ ne jàmm ci kër lay commencé te nit na ji soxna kat boo ko amut boo ko reg boo ko reggalut mënoo koo régler te dafa am loo xam ne dara daa munta dem bàyyi bàyyi ko ginnaaw waaye fas la koo xam ne mboolem ko am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan waaw mboolem bu mu ci mën di doon rek daf daf koy saafara ndax euh, buntu suuf dafay jaar waayu lu bëree bëree bëree bëri. alhamdulilah solution baa ngi nii muy Serigne Abdou Aziz Mbacke waaye am na loo xamante ni itam bëgg naa nag nga leeral ko Sénégalais yi. wàllum ubbeekute bëri na bunt yoo ci jaar waaye tey damay tànn benn muy wàllum jaaro bi jaaro bi nga xamante ni am na ñoo xam ne ñu ngi koy tàmbalee miin ci yow donte ka daawoo ko wax sax ci émission. Ah, xam nga sëñ Cheikh Mohamed Lamine dafa bëri loo xam ne ñaareel ba xam nañ ko di ko def di ko liggéey waaye nag lépp lu ñuy def lu ne rek sëñ Lamine daanaka euh, nit ñi am jàmm moo ñu tax a jug ndax sëñ Saliou dafa daan wax naan defaru képp du ndam waaye defaru defaraale mooy ndam. waaye dafa am jaaro boo xam ne ku ne kenn ku ne xam ne ni maam Mareema sunu maam Mareema Sëy mooy waajuru se mooy maami Cheikh amadu karaa ak euh, suñ maam Thierno sëñ Baara ko joxoon benn jaaro boo xam ne ba mu ko takkee dund na téeméeri at ak ñaar fukk te yaakaar naa ay sëtam kenn ëpp leen barke. waaye jaaro la boo xam ne ñaareel ba nit lu mu tëju tëju tëju waxtu wu ko takkee ndax dafa am ñoo xam ne mën nañoo sangatoo lu ne mën nañoo maam mën nañoo naan lu ne mën nañoo takk lu ne waaye maam dëgg-dëgg si seen wàllu ubbeeku. maam ñu gis ci njëriñ baa ñu gis ci résultat dafay dafay jafe lool ndax seen biddiw moo ni moo ni mel ay jaaro la boo xam ne moom boolem ku ko takk rek bu dee taw feex moom di ko am ci kàttanu yàlla ak dogalam ubbeeku gis ngeen jaaro bi nga xamante ne mi ngi ciy joxe te ubbeeku gu ànd ak gudd fan ànd ak wér am na loo xamante ni itam sëñ bi wàllum kaaraange tollu nañ ci réew moo xamante ni yaa ngi ko doon wax ci sa waxtaan wu mujj bële faase ci jotaay yi ñu amaloon nga ni kaaraange toll nañ foo xamante ni réew mi waxuma la sax kenn ku nekk waaye réew mi ci suñu jëmmi bopp dañ ko war a ñàkk. xam nga sëñ Lamine bu ñuy wax ci wàllu kaaraange xam nga nit mu nit euh, jamono ju ne jikko yi nit ña la ñuy xool te réew mi kenn ku ne xam ne jikko yi ni mel xaw naa doy waar ci xeeti yàq yu ne rek dañ koy dégg dañ koy gis te wolof dane gone bu bëggee mucc day mayu day mayu mbëpp mbaa ak fiir waaye wàllu kaaraange daal am nañ ci loo xam ne. ñaareel ba lu mel ni xasum xëy am na loo xam daanaka deesu ko leeral waaye waxtu wuñ ko def kuñ ko defal ndax euh, wàllu gàllaaj dafa bëri ay màndarga ndax ñaareel duñ ne képp koo xam ne gàllaaj jàpp na la daanaka da ko doo ko tal ba di ko ba di ko nettali ndax da nga gis koo xam ne ñaareel ba fa mu daan liggéeyee ndax gàllaaj njabarkat mën na loo xam ne ni daan day nekk ci bërëb di liggéey ñu ne njabar gi kat buñ ko buñ ko ko defee ñetti fan du ko may maam bërëb boobu dana ko dana dana fa jóge da ngay gis koo xam ne ñaareel dañ koy njabar boobu këram bu fa demee ñaareel ab xolam képp dafay tàng da gis koo xam ne lu gën a bëgg ak doom jëm gën a bëgg day xëy xëy rek mbir mbir yi soppeeku mu doon koo xam ne moom la moom la gën a bañ loolu nag lépp ci xeet xeeti xeeti njabar da koy waral xam nga àdduna nag day toll foo xam ne suñ Cheikh Tidiane si dafa daan wax nan dëkkee faju maanaam euh, jéem a wéroo ko gën lépp loo mën di seen rek sunu borom lay jóge te yàlla moom des koy ñaan rek mu may la mm-hmm. waaye daal wàllu kaaraangeek lépp lu aju ci moom ba ci muslaay ak toj liggéey dindi liggéey ci nit lépp rek des koy des koy def des koy def dañuy jàll ci actualité sëriñ bi waaye laataa ñu jàll ci actualité am na loo xamante ni mosoo koo wax ci émission te tey laa bëgg nga wax ci muy wàllum këyit ndax am na ñoo xamante ni jëflante nga ceeg ñoom agul dara ñu gis ci résultat waaw ah, xam nga sëñ Lamine dafa am loo xam ne képp ko xam suñ baara rek xam ne borom rëkk day te ñun nag mun naa ne ay lantinoor rañ rek lantinoor rak du tee diw lépp lu ñuy def lu ne rek barkeeb suñ baaraa tax ñu koy def waaye daal wàllu këyit nit bu amee jafe-jafe ci wàllu këyit ndax dama naan masalan tey nga nekk euh, bitim réew am ak njaboot toog diir bu yàgg daanaka doo leen gis xam nga loolu ab coona mënu koo weesu te lenn lenn képp leen tax a jug muy tax jug ngir dundal leen moo tax dama naan mbirum këyit nekk na mbir moo xam ne bokk na mbir yi may gën a sonn ndax da ngay masa da ngay gis koo xam ne day nekk bitim réew yàgg fa lool toog fa diir bu yàgg boo xam ne mun a am këyit kooku noo mën a def mbaa lépp loo xam ngir mën koo def rek ndax sëñ Lamine lépp lu ñuy def lu ne rek lu baax rek moo ñu ci tax a jug waaw ndax yaddi muhnin karimin naafin samadin laari daari taati mën a sultaana lépp lu ñuy def lu ne rek jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi rek ñu tax a waaye du leneen waaye daal wàllu këyit daal am nañ ci loo xam ne dem soob na yàlla mboolem nit ku ñëw bu bu ñu ci jëflanteeg yow sunu borom dana def tawféex ci kàttanu yàlla ak dogalam. macha allah ci kàttanu yàlla ak dogalam lay waxee saa su ne moom lay tëjee ay kàddoom looloo tax nag ku ne ñeme ko. looloo tax ku ne jëflanteeg moom waaye nag ku ne xam na kan mooy kan ndax kii ma jàkkaarloo di Serigne Abdou Aziz Mbacké Balla ah réew mi xam nañ ko ndax lu mu wax teg nañ ci suñu bët te lu mu waxit def nañ ko lu mu joxoñ ñu xam ni fa la joxoñ sëriñ bi damay jàll ci actualité njëkkee ko ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr mu mel ni dossier mystique la balaa may jàll ci ñaari jëmm yooyu damay jàll ci takk der yi ak xale yi gis nañu takk der yi sax ñoom seen biir ñi ngi commencé jàpp ñi ngi commencé xuloo ba am na sax kenn koo xamante ni ñàkk na ci bakkanam waaye nag dafa dossier bi dafa mystique daal. ba sëriñ bi taxawee ne mbooleem nu nekk ci maam xeet ba mu taxawee di wax ci wax jooju nañ jël lépp teg ko ci suuf ca lañ war a xawee ni xam ne lu mu ci mën di doon rek jàmm ci la lépp xaj te bu ñuy wax ci diggante dossier boobu ngay wax ci mbirum usmaan sonk ak aji Sarr man moom lenn képp laa mën a wax hmm. sama wax moom day féete ci jàmm ndax kat nit bu boolee yilif la nga yilif ñaari képp ci jiitu muy jàmm ak dëgg lépp lu may wax lu ne rek ma koy teg ci dëgg waaye daal li ma mën a xam ba xam ko nguur gi liñ dëkkee di ko def ñu bàyyi ko moo gën ci ñoom te moo gën ci réew mi ndax àdduna kat ku waxul lii da nga wax lële ndax dafa am loo xam ne lu waaye xamadi xamadi xam na ko bu baax a baax ndax dégg naa ndeyu mbil gi ci boppam nee na loolu dara musta am. mooy Macky Sall ah, ah, Ousmane Sonko. Adji Sarr ndax ki tax ki tax ki wax loolu ne wax ja ca moom la jóge muy sëñ Baye mbay te ñu ko MC. kooku nag kilifa la goo xam ne kenn ku ne euh, xam na ni euh, doomu Baye ñas du ku ndaw te nekk na nit koo xam ne lépp lu mu wax lu ne rek maam njëriñu boppam taxu koo jug lépp lu mu def lu ne rek njëriñu réew mee ko tax a jug te Adji saar wax na ko ci ci ci wax na ko ñuy dégg te moom moo tee moo moo tee moo témoin wax ja kon nag nekk na mbir moo xam ne moom su ma soñoon lépp rek ñu jël ko teg ko ci suuf ndax loolu mooy jàmmi réew mi. waaye du. waaye waat le 23 ñu jóge ci le 16 Ousmane Sonko jóge ci le 8 ñuy renvoyer dossier bi par 8 jours par 7 jours est-ce que tamit Ousmane Sonko loolu dina ko arranger. waaw xam nga àdduna moom dama naan ñaari mbir moo am mbiri Ousmane Sonko moom lii dafay jantub fajar lii di eh, jantub eh, timis jantub fajar nag lu mu gën di dem day gën di leer. jantub timis nag lu muy gën di dem day gën di lëndëm loolu nag bu ñu koy misaal mooy diggante fen ak ak dëgg noonu képp la tëdd moom noon képp képp képp la tëddee. waaye daal maanaam mbiri Ousmane Sonko noonu la mel daal de lu ñuy dem muy gën a leer. lu muy lu ñuy dem day gën a leer loolu moom amul kenn amul ñëpp am nañ ci ak ak yaqin ndax boobaak tey daal yaakaar naa lu bëree bëree bëri leer na ci sunu ci bët. sëñ Lamine daal maa ngi nuyu ñëpp te di leen ñaanal jàmm te di sa di sant ñëpp te di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah mi ngi noonu mbokki internet aloo Sénégal sëriñ bi yitte yee ko woo. tax na mu tëjal boppam sax émission bi ndax daan nañ faral di waxtaan mu gën a gudd mu gën a yaatu mu gën a leer ndax li mu bëggoon a révéler tey bëri na waaye nag yitte bu taxawee rek dañ koy comprendre te baal ko ko permettre ko ko donte ko suñu sëriñ la waaye nag suñu waay la permettre lañu ñu lu ne ñu sañu ko ñu sañ koo tamit déplacer def ak moom émission ndax gis ngeen boobu ba léegi ndongo yaa ngi fi. waaye nag mu permettre ñu donte ko sax euh, matul matul matul 30 mu may rek ngir ñu jël ko ci temps li ko may nag mooy oyofam li ko may mooy mbaaxam waaye nag li ko may mooy modestam mënoon na ni Mbàkke laa sant man may satug Serigne Sidi Muxtaar rek toog fa mu toog waaye dafa nekk ca tool ya di bay nekk ci àll ba di jàngale waaye nekk ci dëkk bi itam di faj. aajoy jaam yàlla loolu la ko maamam sant waaye nag loolu la ko kilifa yëpp sant teg ko ci ay loxoom ba ba léegi mi ngi koy doxal Mbàkke Bàlla mu ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen benn émission jërë ngeen jëf